ne bi ñu fi ñëwee ci conseil des ministres bii jàll. am na lu président waxoon. am na lu président Macky Sall waxoon. jëm ci hôpital bu mag. jëm ci hôpital bu mag. boo xam ne war nañ ko defar fii. boo xam ne war nañ ko defar fii. kon mën na leen wax. kon mën na leen a wax. liggéey bi sori na lool. liggéey bi sori na lool. boobu ba tey. booba ba tey. ñu ngi ci projet bi. ñu ngi ci projet bi. ñu ngi am yaakaar. ñu ngi am yaakaar. wér bu wér nag. balaa at bi di jeex. balaa at mi di jeex. liggéey bi dina tàmbali. liggéey bi dina tàmbali. li nga xam ne ñu ngi koy def Tivaouane président nee nañ ko def Thiès ndax Thiès dëkk bu mag la te Thiès dafa takkaloo ak Ndakaaru daañu ko defit mbuur bu neexee yàlla ñaari hôpitaux yooyu moom ñaari hôpitaux yooyu ñoom seeni financement mat na ñi ko war a def xam nañ ko formalité signé. ñoo ngi ci formalité signé. bu dootul yàgg bu dootul yàgg. ministère de l' économie. ministère de l' économie ak santé. ak santé. dinañu eggale liggéey boobu. daañu yeggale liggéey boobu. mën naa wax sax ci wàllu santé. mën naa wax sax ci wàllu santé. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy xool lépp. ñoom ñi nga xam ne santé ñooy xool lépp. nee nañu léegi yëpp pare na. nee léegi lépp pare na. kon incha allah. liggéey boobu dana tàmbali loolu nag dañ lay fekk ci li nga bëgg loolu nag dañ lay fekk si ci li nga bëgg ndax bu nekkee da nga nekk ak askan bu fekkee da ngaa nekk ak askan gis ni poste de santé war na mën a am gis ni poste de santé war na mën a am nga bëgg ko dolli nga bëgg ko dolli ndax wér moom ndax wér moom loo ci am loo ci am doyul moo tax bi ko gouverneur waxee léegi mu lay sant bu baax ndax loolu kat njegeen ñun ñëpp nga ko defal ne maa bi sax nga ko gën a defal poste de santé boo fi defee poste de santé kon war nañoo xool nu mu gën a gaawee kon war nañoo xool nu mu gën a gaawee bépp équipement bu mu soxla bépp équipement bu mu soxla ñu indi ko jàppale ci liggéey boobu jàppale ci liggéey bi wax na ko gouverneur wax na ko gouverneur léegi buñ fi jógee buñ fi jógee nga wax ak ministère de la santé nga wax ak pour que li ngeen soxla pour que li ngeen soxla ñu def ko ci poste de santé boobu ñu def ko ci poste de boobu am na ambulance boo leen jëndal ni ko waxee bu dee am na ambulance boo leen jëndal kooku incha allah koo incha allah safoor yi daañu ñëw dana la jox ñaar koku daan ci taxaw mu meuna nek ci nu mu gën a gaawee am na yeneen yu ñu fi xol ci lépp lo xamni jàpp nañ ni askanu soxla nañ ko nun amna luñ ci xam amna luñ ci gis waye bu ñu ñëwé li tax ñu taamu di waxtaan ak kilifa diine yi njaboote askan wi dañoo jaboote askan wi rek ñoom dinañ dégg loo xamante ñoom daañu dégg loo xam ni xëy na ñun bu nit toogee ak ñun xëy na bu nit toogee ak ñun wax lépp duñu wax lépp waaye bu ñu toogee sëriñ bi waaye bu ñu toogee bi dinañ ci xam lu bari daan ci xam lu bari ndax yéene bi ñu am ndax yéene bi ñu am mooy nekk ci soxla askan wi mooy nekk soxla askan wi bañ a baril ay wax bañ a baril ay wax xool rek li ñu bëgg xool li ñu bëgg jaarale ko ci kilifa jaarale ko ci kilifa yi ñu nekk ci loolu loolu daal sëriñ bi mooy tànk yi nga xam ni indi nañu fi ñu jëkke fi te wax nañ li tax ñu war fay jëkke ne jàpp nañ Sénégal ni mu bindo li nga xamni am nañ ko ci walu diine li nga xam am nañ ko ci wàllu diine diine yi fi nekk yëpp nag dañ ko war a sàmm ndax li yàq réew yi bari na foofu la jaare kon ñun bu ñu ci réew mi kon ñun bu ñu nekkee ci réew mi ñoo bokk mbir mi. war nañoo fexe ñi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom mbir mi. xëy na sax ñoom ñoo ñu ci ëppale. xëy na sax ñoom ñoo ñu ci ëppale. jàpp na ñoom ñoo ñu ci ëppale. jàpp na ni ñoom ñoo ñu ci ëppale. kon ñu gën leen a dooleel. kon gën leen a dooleel. gën leen a dëgëral.